yéen a ngi déglu Baol Média FM. asalaamaaleykum dal leen ak jàmm ci seen rajo Baol Média ñu fa yéene leen a digtal xibaar yi gën a fës ci bés bi affaire Sweet Beauté nag ki nga xamante ne mooy Malick Gakou mu ngi fësal li nga xamante ne mooy mooy soutien wam jëme ko ci ki nga xamante ne mooy président bu PASTEF di Ousmane Sonko mu ngi wax assemblée nationale ak justice bu Sénégal ñu veillé bu baax ci li nga xamante ne mooy respect maître Abdoulaye baabu nag nekkoon ancien député nee na bu fekkee ne plainte dafa ki nga xamante xamante ne mooy Ousmane Sonko kon su boobaa kenn amatul droit yëkkati li nga xamante ne mooy mbalaanu kiiraayu Ousmane Sonko. li concerne li nga xamante ne mooy disparition wu aji Sarr depuis ba mu porté plainte ki nga xamante ne mooy usmaan Sonko Mbène Diatta nag nekk secrétaire mouvement des femmes. mu ngi ñuy xamal ne kii di aji Sarr dañ kaa manipuler ba pare séquestré ko ba tax na mu ngi wax ñi nga xamante ne ñoo ko séquestré ñu bàyyi ko mu dem parce que Adji Sarr wax na itam ne lii séquestration la pour manigaase ak xeex benn adversaire politique. Adji Sarr nag tey la gën a gën a soxla ñi nga xamante ne ñooy ay parents mu ngi wax ñi ko séquestré nañ ko bàyyi mu njibbi seen kër loolu nag mu ngi ñu ko xamale ci bañ ko invité ci émission Tok Tok bu Sénégal ba mu fa nekk woon invité politique. Ousmane sonk nag mu ngi ñu xamal ne dafa gêné wu bu gisee ki nga xamante ne mooy mooy sëriñam di sëriñ Abdou Mbacke ci tuuma bi ñu ko tuumaal nee na sax day nëbbatu pour du ko gis nee na nag yëgutoon li nga xamante mooy déclaration bi nga xamante ne sëriñam boobu def na ko mënu ko sax xool si nga xamante ne mooy ci tele yi li nga xamante ne moom la sëriñam bi daj ci affaire bi même yaayam sax daju ko si moom nee na nag ki nga xamante ne mooy Serigne Abdou dafa bàyyi yitteem yëpp pour topp ci li nga xamante mooy problème yi nee na nag du mosa a jóge ci di ko remercier ci li mu def nee na certes que ne ab du sëriñam la waaye dafa am benn complicité bu naturel boo xamante ne dafa am ci seen diggante loolu nag ay témoignages yoo xamante ne Ousmane sonk moo wax ak délégation bi jóge woon Touba dem seeti ko këram ki nga xamante ne nag mooy Moustapha yi moom nee na dafa démissionné la ko waral mooy Moustapha Niass def kaa nanguwut a jox parole mu wax ci ndaje mi ñu doon amal fa nga xamante ne mooy assemblée nationale. loolu moo nekkoon xibaar yi gën a fës ci bés bi ñu jox leen dig daje beneen yoon incha allah jërë ngeen jëf.